coow yi nga xamante ne mu ngi judd ci seen biir barki démb gis ngeen émission confrontation bi amoon diggante guy gi liiru jaan ak Abdou Diouf coow jot fa am ba émission bi mujjeewul yegg en tant que mbër doon doomu géejawaay bi nga ko gisee lan nga yëg. non loolu moom seraan naa ko mais mais dëgg yàlla xam nga mooy la ko quoi ndax loolu du yoon ndax ñoom ñoo bokku géejawaay bi Abdou Diouf ak guy gi ñoo bokk benn koñ. ñoom ñaar ñoo fowandoo barki démb roon mi ngi koy wax. saamay dégg barke dem róon rek mi ngi koy xam nga róon ngi naan yaay liiru moo yor Abdou Diouf xam nga comme ñoom ñaar xam nga dara waru dégg xam nga xam nga ko ñoom ñaar waaw war a xam dara waru xam nga dox seen diggante mm-hmm. isaamay dégg ndax ñoo bokk géej waaye guy gi tamit waxi noonu mm-hmm. xam la mais dem ba élhageni ma la su waaye xam nga ndax xam nga ndax benn nit xam nga di jéem a noonante mm-hmm. xam nga loolu du yoon quoi ndax lan alal àdduna xam nga ñoom far làmb la waaw moo géej tamit borom baax la dëgg yàlla mi ngi jàppale mbëru géej waay waaw mi ngi xama xama mi ngi jàppale ñëpp mais loolu moom dëgg yàlla jiili xool man moom seeraan naa ko quoi mais bu ma ko seeraan xam na maa déplané ko quoi mais heure la rek xam naa heure la rek mais liiru borom baax la Abdou Diouf borom baax la guy gi borom baax la dëgg yàlla moom ñoom ñëpp ay borom baax lañ samay grand lañ waaw xëy na heure la rek waaw mais incha allah bu ñëwee rek xama nga gars yi waxtaanaat waaw est-ce que ñoom ñooñu seen diggante dina war a mel ni mu war a mel parce que ay xale yoo xamante ni dañuy topp seen ginnaaw ku ci nekk ay xale ngi topp ci ginnaawam que ça muy Lirou que ça soit muy Abdou Diouf wala muy Guy gi ñoom ñooñu ñëpp ay ay kilifa lañ yoo xamante ni tey est-ce que séntu woon nañ leen ci làmb foofu ñu dem ba benn dëkk ku ci nekk war a défendre dëkk bi nga xamante ni moom nga dëkk rawatina yor drapeau Sénégal ñu am ay détails yoo xam ni ñoom ay doomu réew mi ñoo ñoo ñoo ñoo judd ci loolu. Mm-hmm. waaw loolu moom du yoon jii lii wax dëgg yàlla moom war a waruñoo jóge fii dem ba États-Unis xam nga di noonoo ma loolu d'accord moo ko ndax ñoo bokk Sénégal bokk benn géejawaay bokk bokk fenn fu ñuy yeewoo waaw mais loolu moom dëgg yàlla ma rafetalu ma ko quoi waaw dëgg yàlla moom du yoon mais waaw xëy na ñàkk waxtaan rek moom mais réeroo amul ndax liiru moom borom baax la liiru moom moom comédien moom day nekk fii ma la suma baay mooy loolu. booy liir nga sama musiba de. comédien boobu de dalaa rëcc <laughs> liiru jaan bu li maa waaye nga di comédien. <laughs> liiru. boobu dalaa rëcc <laughs> ah, liiru liiru sama doomu ndey la ah, liiru eh. yow liiru sama waay nga. Ah, non liiru comédien liiru comédien ma dugal ma dugal jili liiru liiru du comédien liiru eh. doomu ndey moo géej la Abdou Diouf doomu ndey moo géej gu gi tam noppi ñoom ñëpp ñoo far quoi man jaru ay waaw ku nekk li nga war a am su moo géet Issa bu soobee suñu borom xama nga da nga ko fi am mm. mais jarul yéen ki kii jiili mm. barke Serigne Ba ñoom ñoo far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 ñaari mbër yi nga xam ne ñoom rekk fees nañu